notre tournée bi tey mooy une tournée ci région de Dakar euh, ci instruction sur nos président de la République euh, vraiment sur orientation aussi ministre au assainissement nous euh, ñu yebal pour ñu ñëw xool si li nga problème assainissement au niveau ci ci gox yu bëri donc nous, nañu fële zone zone bi wax zone captage au niveau de Grand Yoff ñu avons ni foofu jafe fait. Euh, bi nga xamni mom mom lañu gis fofu moy ndox mi pour ñu ñu ñu ñu drainer ko day xaw compliqué mais man def nañ fa pompe bo xamni day fonctionner 24 heures sur 24 ba nga xamni ni ko dina refouler ndox mi ci euh, ci canal euh, donc an fan maintenant une mesure provisoire la parce qu'en réalité, réalité station d'épilation bu Cambérène ñu ngi koy parce que jogé na ci 20 000 mètres cubes donc voilà a 90000 90 000 mètres cubes donc travaux est avancé une fois que travaux yi jeex.

mën nañu wax ni sax kër dafa ba nga en fait réseau réseau bi donc maintenant euh, des mesures provisoires dévier donc canal pour créer ay réseau mais mesure provisoire en attendant avec étude bi nga xamni mom lañu la def globalement au niveau de ces SICAP là pour vraiment que problème bi ñu jël ko une fois pour toutes euh, jogé nañ fa dem waagu euh, donc côté bobu Baobab euh, fofu aussi gis nañ ay affaissement donc canal euh, canal euh, C'est tout ci ben kër goo xamni il faut que ñu xol naka la nañ koy régler hein ñu régler ko nu mu gën a pour ñu mëne ko régler nu mu gën donc sinon rek conséquences yi euh, mën nañ ko mën nañu xalaat ni peut-être euh, voilà mën na andi des catastrophes maintenant lu ñu mën def mooy euh, ci ni mu gën a gaawee ci semaine bi dañu bind autorité yi nga xam ni le ministre de assainissement ak naatangoom yi pour ñu xool naka la ñuy en fait détruire kër googu pour liggéey yi commencer. parce que tant que liggéey pas ñu xaar ba hivernage bi ñëw yeneen conséquences mën na ñëw donc il faut que ñu def tout pour loolu aussi remarqué nañ ko au niveau de l'université am nañ benn investissement boo ni jot nañ ko liggéey ba mu àgg mu des ben bo xamni ni commencé guñ ko liggéey mais ci lañuy jëm pour dans les meilleurs délais ñu réparer ko comme ça au moins affaissement boobu mu mu bor euh peut-être ci université fatona naa ko ci ci français il faut que ñu xol naka lañuy euh, def ben communication avec l'université avec les universitaires avec euh, évidemment les responsables de l'université pour sensibilisation bi nga ni canal enfant, fann jaar na ci université Et je crois que c'est une troisième fois moi m'a ay affaissement il faut que aussi ñi nga xamni ne ñoo fa ñu leen sensibiliser et de la même façon hein ci long euh, lëngooru canal bi yëpp il faut que ñu sensibiliser population bi et je crois que sono sono sunu équipe bi dañu ci jëma vraiment euh, dox jéego pour évidemment sensibiliser nit ñi ci euh, ce canal fan bo di wax ni rek autorité yi dem ci ki nga xamni ni sunu son excellence président de la république joxe na instruction ferme pour que nous trouvions une solution rapide hein, par rapport à la gestion de ce canal, euh, canal Anfan. Collaboration avec Sunu je crois que c'est tout ce que au niveau de au niveau de le canal ouest. Parce que euh, nous avons ni nous parce que fermer côté donc nous mi ci dans côté au niveau de l'est pour euh, au niveau de l'est pour dem au niveau de l'est donc foofu sunu que nous Promoville def nañ ci benn étude étude boobu sax war nañ ko partager ba nga xam nous ñu xool ban solution lay doon mais duñu moment a dem ñoom rek ak ñun il faut appliquer aussi ñu intégrer leen parce que soo xoolee TER bi aussi ci ci zone boobu la zone canal bi la donc euh, vraiment suñu xoolee euh, collaboration boobu ak différentes structures yi mën aboutir à des solutions di wax ne rek aussi euh, collaboration boobu dem na ci côté fisc côté Cyprès côté aussi une cité yi c'est SDE Binal faut aussi sunu naataangoo yi ñoo suñu naataangoo yi donc euh, direction d'exclusion, prévention et gestion des inondations euh, avec avec euh, aussi APIX même FH hein, donc nous ci impliqués. pour que solution soit nga moi moi moo moo moo côté ensemble avec supervision préfet évidemment gouverneur aussi sous ses orientations Nous avons naka lañ trouver ben ben solution définitive mais solution bi nga xam ni mënul ñàkk te peut-être moo moo gën a ñu ndox mi mu naturellement donc fépp nga xam ni bari woon nañ ko ñu jëm ko dindi pour ndox mi mën a couler normalement peut-être su mën a ba au niveau de la de de Madiagouna Mbao ñu ñu def loolu pour mu àgg euh, neuf sites yi nga xam ni moom la ñu dañ koy visiter dolli nañ ci benn muy euh, fukki fukki set pour wane ni rek en fait assainissement nek lo xamni il faut ñu xol dem sur le terrain pour nous apporter des solutions. et euh, avons euh, chef de la république son président de la république avec orientation évidemment ministre de l'assainissement donc nous rek fait ce commencement là donc deuxième phase au niveau de la banlieue Dakar pour nous, nous aussi réaliser au niveau des régions aussi amener, en quelque sorte une programmation de tournée nous faire